ña daa xiiru ak ñay mat seen gëñ ya foq nañ sa bawkat yi seen gémmiñ yi saañ nañ ko Mustafa ña daa jabar ña daa xaatima ña daa luxus yalax nañu seen xam-xam ya far toppi Mustafa si gil te weytoo madru yi tuub nañ ci yow bu wér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 ci waaw mbaa ci waawaaw mbaa ci woowoo nga tollu tey ku ñëw rek ku jëkki jooy ndeyaa doon Mustafa wolof nee na woote bi yàlla moo gën bu nit di def defoo kenn deful yàllaay borom kun fa Mustafa wolof nee ku am xel nangu dem téléphone nelaw ku am xel na ànd ak dem wuy ji Mustafa la Seex Bamba noon waa réew mi ku dib dof na tuug ni xel wa dew fekk Mustafa Sëriñ Bamba tuubal nan la ñëw nan bi jaayikum te salaaw dootu nu dellu wel nan ci Mustafa ndax ganaar nenam yaak siqiya cuuja kulluhum borom gambu baa moom lépp naaw tal nu mustawa cheikh mustawa mi maay mujjisaatam fardi lamiñ wa koy waxal wa kallama rabbul harsi musa bi mustawa lu jin njaaga bambay njaag te mooy njiin fa mustafa ku nag jikkoom war naa liggéeyal si mustawa cheikh moustapha gee jum gëneel waaju ak duy ku bay xondooj yaa tey ma ngay wal fa moustapha ndoxo ngi wër tuuba batum ay nu rahmatin waxay nuuri daa dem leen dëkkee ki sayqi moustapha ma nga tuuba bi tajdiidi diinihi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 بعد باطن عنايته قبل الولاية مستوى kilay Mbàkke waa Kokkeeg Luga ak Ndaam di kër ndeyam ña doon kaañi kankaak mbaa koleeraam fa mustawa kuloo wasra boo dex gaa fengat to dootu daay sëriñ bi di barul juudi nuur leen fa mustawa ولا يستوي البران عصب سرابه وملح أجاج بالخياس نت مصطفى ولا يستوي لهما كلام إلهنا فأنت بشير يا شيخ عبد المصطفى ولا يستوي لهما كلام إلهنا fanta basirun yow see xam di mustawa barkeb sëñ Tuubaa